gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci sang-sang yi ñoo ngi nuyu mbooloo mi fi teew kenn ku ci ne ci turam ak santam ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax xanaa kay kontaan lool bég lool ba tax na la ma war a wax sax ma ko mën a wax tey ndax mbégte ak kontaante waaye di jiital ci nuyoo bi eh, suñuy kilifay bopp suñu wayjur di suñu papa bi nga xam ne moo nekk fii muy suñu papa Omar ñu ngi koy nuyu eh, di nuyu représentant bi nga xam ne moo doon wax fii di suñu mag di suñu kilifa Babacar ñu ngi koy nuyu buñ ko nuyoo rek nuyu nañu notable dëkk bi yëpp. waaye di nuyu imaam mu dëkk bi muy Alassane Faye nuyu nañ ko bu baax a baax sant ko ci teewaayam waaye di nuyu notable dëkk bi yëpp bu waa Kër Walit Malicounda Ngëriñ ñëpp ñëw teew nañ teew si beneen bi ñu ngi nuyu délégation yi fi ñëw yëpp bu ñu limee dañuy juum moo tax du ñu lim mais yi fi ñëw yëpp gis nañ leen sant nañ leen gërëm nañ leen ñu ngi nuyu également jeunesse bi yëpp di nuyu euh, jigéen ñi ci seen teewaay jigéen ñi yenn a ko yor bi gis nañ ko euh, bu ngeen mobiliser wul rek bépp politicien li muy soxla mooy jigéen ñi mobiliser te gis nañu mobilisation bi fi xew tey kon am nañu kontaante ak mbégte ci yéen ñu ngi leen di sant bu baax a baax kàddu yi du bëri kaddu yi cant la ak ngërëm rek ndax doomu aadama boo xewlee dara nit ñi bàyyi seen i soxla bàyyi seen i yitte ci suba ba tey ñu ñëw yendul la mënoo leen a fay ndax dañuy wax ni doomu aadama boo xewlee mën ngaa luye ay baas luy ay seize waaye manoo luy nit ñi base yii day luye woon luye nañ leen ak seize yi waaye nit ñi ñëw teew si day luye wuñu kenn joxuñu kenn paas it joxuñu kenn xaalis pour mu ñëw teew jënduñu kenn kon nag amuñu seen pay lii yëg-yëg la sama du sama jëm ji day tax waaye yëg-yëg bi ngeen am ci ñun la kon mënuñu leen a fay ci suba ba tey ngeen ñëw yendu fii bàyyi seeni soxla yëpp manuma leen a dañu ñaan yàlla rekk mébét bi nga xam ne lañu am te ñun ñu bëgg ko ñun ñëpp yal ko yàlla mottali yal ko yàlla mottali yeggali ko mooy le 23 janvier 2022 bés boobu bu ñu wàññee rek gars yi yuuxoo ca kaw de vive gañe nañ te loolu am nañ ci yaakaar lool du lu ñuy ragal nit da ngay gëm sa dañ ciy dem ak ngëm-ngëm te gëm ni le 23 janvier dañ koy duma ñu bu ñu nekk bu ñu gëmee yàlla ba noppi war nañoo gëm ne yàlla mooy joxe yëf yi du loolu lañ wax yàlla moo moom nguur di ko jox ku mu sopp kon nag jàpp nañu ne nañ sabab lu def lu ñu war a rek li ci des ñu tallal koy loxo ñaan ko mu defal ñu luñ bëgg yëf yi du ci doole du ci am am du ci dara lu dul sabab lu bàyyi ak yàlla yàlla def li ko war fii jarul jaay doole jarul jaay ni yor nañu jarul jaay dara ñoom biñ fiy ñëw en 2014 ñaari dërëm yoruñu ko lu leer nañu fii la fii la ñun ñoo jàkkaarloo woon ak ñoom en 2014 ñoom yoruñu ñaari dërëm kon tey mënuñu ñoo jaay luñ loo xamante ni ñu gisuñu mënuñu ñoo jaay am-am du am ama koy joxe. moom bi leen bi muy ñëw fii en 2014 yorul dara kon tey ji ñun li ñu yor nii oto yi ñuy dawal nii moom yoru ko woon waaw kon tey ji mënuñu fee ne di ñu jaay am-am naan yor na nangam ki nangam loolu taxawul ñun dañoo gëm suñu bopp gëm li ñuy def xam fi ñu teg suñu tànk ñu gëm ne le 23 dañ leen di gagné. loolu lu leer nañu la kon amul yox yox yi amul dara nañu gëm li ñuy def te liggéey liggéey bi nag ñu ngi leen ciy woo li li wax ji am nañu ko fi wax mooy nañu dem élection yaa ngi ñëw yàggatul jàpp nañ ko le 23 janvier 2022 yàlla buñ ko puusaat ndax nguur gu fi nekk moom ñoom puus moom ñoo ko fi dàq bu ñu xoolee ba xoolaat rek ñu wóor leen ne ñoom alors mbir mi dafa nar ñu puusalaat gars kon man ba léegi gëmuguma le 23 janvier gëmuguma ko ndax ay tàppet lañu bu fekkoon ne ñeme nañu te ne wóor ne bu ñu demee dañuy gagné kon 2019 la ñu organiser leer nañu. le 23 janvier bi ñu wax nii gëmaguma ko kon ñu nit nañu waajal suñu bopp rek te daas fanaan la parce ñoom kat ab tapet moom bu lay song da lay bàyyi ba nga yaakaar ni yow dafa keetoo day mel ni maanaam yow da ba nga xaw a euh, kii rek mu dugg say daal tànk maanaam du bàyyi nga am concentration maanaam day bàyyi ba nga woon ko ginnaaw rek mu dugg say tànk kon nag ñun moom nañu concentré wu te jàkkaarloo ak ñoom pareel suñu bopp ba bu ñu waxee ne suba suba la rek ñu nekk loolu nag li koy waral mooy suñuy ngànnaay nañ ko préparé muy suñu carte d'identité yi ah dégg naa ñuy waxaat ne le 15 bii di ñëw day le 13 le 14 suba. le 15 la ñu wax ni la liste électorale yi di ubbi loolu de la wax nañ wax nañ bàyyi ba gis bu liste yi ubbee nag képp koo xamante ne bindu woo maanaam ñi am carte d'identité te ñu bind ci non inscrit dem leen binduwaat dem leen bindu wut leen certificat de résidence ngeen dem ci commission bi ngeen bindu. pour ngeen am carte électeur muy jeunes yi nga xam ne am nañu carte d'identité ñu def ci non inscrit beneen bi ñi nga xamante ni ay gan lañu dañ doon voté feneen ku nekkul ci commune Malicounda nañu transféré maanaam nañu jëlee fi ñu doon voté indi ko ci biir commune bi ñooñu dañuy photocopier seen carte d'identité légaliser ko wut certificat de résidence dem ci commission bi wax ne man kat léegi Malicounda laay bëgg voté ci lieu de vote sangam nga seet bi la gën a jege nga bindu foofu pour ngay voté foofu loolu nañ ko préparé léegi maanaam nañ bàyyi xel ci le 15 bu jotee ñun dinañ wootee képp responsable yëpp yëgal leen ni commission bi ñëw na mais fekk ñëwagul nag mënu guñ cee wax dara wax nañ nag le 15. bu demee ba le 15 dinañ dem vérifier ndax commission bi ñëw naam ñëw fekkee ñoo na nag ñu dañ leen woo yéen ñëpp ngeen gëstu ci seen i gox seen i quartier xool ña fa nekk ndax dañuy transféré wala dañuy bindu loolu bépp responsable na nga ko préparé nga def liggéey boobu parce que man dem ba xaw ma ci gox goxaan yi ña fa nekk kon yéen yi nga xam ne yéen a nekk ay responsable nekk ci quartier yooyu. wàccaat leen ci terrain bi ngeen gëstuwaat nit ñi nga xam ne ñoo fa nekk parce que mbooloo mi lu muy bëri bëri nag te yoru ay carte alors kon li ñu bëgg duñ ko am mbooloo mi bu bëree nii ful bi bëri moo tax euh, ngeen di gis ay meeting mbooloo mi bëri te fekk ne ña ca nekk ñëpp yoruñu ay ngànnaay bés ba jot nag nga am bettange gis leneen loo xamante a ah, niroowul ak mbooloo ma fa nekkoon loolu nag bëgguñu ko dañu bëgg mbooloo may ñëw di teew ñu yor seen i ngànnaay pour bu demee ba bés ba rek ñoom ñu mën a voté loolu la ñuy leen di sant nag ñu liggéey ci liggéey boobu kon cant yi ñu ngi sant ñëpp gox-goxaan yëpp bu ñu limee dañu juum waaye sant leen leen yëpp yéen ñi yéen ñi nga xamante ni ñëw ngeen 22 villages yi gis nañ ñëpp délégation yi jóge nañ fépp lim nañ ko fii. yéen ñëpp ñu ngi di sant di leen gërëm di ñaan yàlla li nga xam ne mooy lu ñu bëgg yal nañu ko yàlla yombalal du ñu xas kenn du ñu saaga kenn di ña dinañ défendre suñu idée na yarewuñu xaste yarewuñu saaga yarewuñu wax wax ju ñaaw parce que mbir mi du xaste du wax ju ñaaw du saaga moo koy joxe kon nag yooyu jarul jarul mu mu mu ñu koy def man nag maa ngi leen di woo ci loolu ci yar ak teggi ñu def li ñu def buñ ñu saagaa gu leen wuyu ci saaga bu ñu waxee wax ju ñaaw buñ leen tontu nañu liggéey li ñu liggéey le 23 janvier ñu gañe leen ñu jóge fi loolu rek lañ leen di wax.